bu fanweeri fan ci weeru euh, deux mille 2011 euh, soxal itam statut général des agents des collectivités territoriales kon càkkutéef baa ngi noonu Ablaye Mbow euh, ci état bu Sénégal laaj bi mooy alal moo tax mairie yi euh, tàgga témbel mbir mi ba léegi euh, boobu ba léegi agent yi di daw ci seen koppar dañuy jàpp ni xëy na manque de ressource la manque de ressource financière la euh, waaye itam jàpp naa ni mairie yi ndax am waxtaan nañu ba trouver accord si li nga xam moo jëm si mhm. augmentation de salaire mhm. def naa ni ñoom ñoo war a def teg matuwaay yi war mhm. ba nga xam ni augmentation de salaire yooyu dina nekkul une réalité gis nga Seydi Mohamed travailleurs des collectivités territoriales boo ko bëggee nga ne les agents municipaux bokk nañu ci këru liggéeykaay yi gën a sonn mhm. ay salaires yu dérisoire la ñuy am te dañuy daw derrière des arriérés gis nga boo jëlee Dakar les travailleurs du fonds d'entretien routier yi nga xam ne mhm. ñoom la ñu affecté ville de Dakar ils sont pratiquement à près de six mois d'arriérés de salaire mhm. te def naa nag war ñu xool liggéey gu ñuy liggéey ni mu muccee ayib surtout nag agent municipal bi ak lu jëm ci ay actes yoo xam ne nit ki da koy soxla saa ne nag ñooñu permettre ñu sentir seen bopp si liggéey bi. Mm. Euh, lii nga xam ne trouvé nañ ko ñu daal di koy respecter. Mm. léegi nag il appartiendra aux aux aux collectivités. Mm. d'aller chercher les moyens conséquents avec le soutien de l'État pour permettre liggéeykat yi véritablement. ñu mën a entrer dans leur droit et dans le droit absolu parce que ku ne augmentation de salaire tam wax itam li nga xam di application. mi ngoog Ablaye Mbow ñu wax ci leneen soxal xibaar yi muy ONAS mi dikkaat ci ji office national d'assainissement du Sénégal wax na ne dara waralu ko lu dul euh, branchement clandestin yi directeur de l'exploitation euh, mi ngi doon amal ak tukkib nemmeeku ci boobu leeg euh, commune gis na ne sax ne dañu nemmeeku léeg-léeg ay corps solides yu doy waar ci réseau bi bu dee sax xam na ne lu jëm ci wàllug boobu leeg réseau dafa vétus maanaam dafa màgget lu may loolu itam jàpp nañu ne am nañ ouvrage wu ñu mën a yeesale lu jëm ci wàllu woowee ba lu jëm ci wàllu assainissement mën a doon kon lu nuy fàtt àtte ci boobu les communes di Grand Yoff Alassane Baldé gannaaw jafe-jafe bu tar bi nga xamante ni moom la askan ba yeewoo ca Grand Yoff uh, nekkee jëm ci ndox yi ball ca gox ba ONAS daal duut baaxam branchement clandestin yi ak salte yi nga xamante ni mu ngi ne xuus ci biir réseau bi. xam nga boo defee branchement clandestin branchement bi nekkatul aux normes te la plupart du man du temps euh, lépp li nga xam ne mënu day jóge ci kay yi salte yëpp ñëw ci réseau ñëwee moom mooy bloqué gis nga réseau bi bu amee problème rek bu bloqué rek c'est ay salte moom moo nekk ci biir te basement clandestin moom ça ne mu am na ay jafe-jafe lu jëm nag ci wàllu investissement gannaaw dayoo askan ba yeewoo ci diwaanu Grand Yoff ba tax mu xam leen ni nag daañu wéyal liggéey nga xam ne bi ci jafe-jafe googee. na projet boo xam ne amoon nañ ko pour améliorer ci yenn ngi ci aussi di réfléchir pour naka la ñu mën a daal pour accompagner population yi. laata nag ñu daal di amal yooyu le projet nag askan ba yeewoo ci diwaanu Grand Yoff nag daañu muñandi dund ak jafe-jafe yi nga xamante ni moom lañ nekkee bawoo ci ndox mu ban bi nga xamante ni li ngi ball saa su ne ci mbedd medaani commune bu Grand Yoff. génne leen xale si salte génne leen xale si jafe-jafe si ndox bu salte kon ñu ngi ñaan yàlla yàlla boobu mu fay leen. laata nag ñu daal di amal yooyu les projet nag askan ba yeewoo te diwaanu Grand Yoff nag daañu muñandi dund ak jafe-jafe yi nga xamante ni moom lañu nekkee bawoo ci ndox bu bon bi nga xamante ni mi ngi ball saa su ne ci mbedd daanu commune bu Grand Yoff. Euh, Abdoulaye Mbow euh, lu jëm ci wàllu assainissement ak jafe-jafe yi ci yenn ci ay commune di amee au-delà ay réseaux yu vétus ñun askan wi itam am nañ ci part de responsabilité. part de responsabilité bu yaatu te xam nga assainissement dafa nekk secteur boo xam ne ay milliards la ñuy suul. mënoo mhm. koo gis. Mhm. Euh, am na ay améliorations yoo xam ne c'est des améliorations conséquentes. Mhm. pour li nga xam ne mooy jëm si gën a yeesal réseau bi boo demee jëppal Derklé ba laal Sicap di nga gis ni ñu ngi yeesal bu baax li nga ni réseau bi waaye lu ñu yeesal yeesal bu ñu ko defoon ay tuyaux yu toll nii sax néeg. Mhm. da nga maam ñun tam dañoo am responsabilité xam ni euh, euh, fos yooyu dafa am lu fay dugg mhm. la fay dugg ak la fa dul dugg waaye bu dee danga am xar gu dee nga xaar ba guddi ubbi ak fosse suul fa boo amee jallu mbalit xaar ba guddi ubbi ko dugal ko fa loolu c'est des action yoo xam ne dañ ko war a bannir mhm. si li nga xam moo di société sénégalaise xam ni effectivement bu bu ballee euh, cadre de vie bi lay yàq te itam environnement bi lay yàq te loolu tamit il faut quand même yi xam ni réseau bi pour ñoom la pour ñun la pour nu permettre d'avoir véritablement un cadre de vie sain. Mhm. ONAS li mu def ak kuréel yu si lëkkaloo ñu ngi siy def liggéey bu am solo. Mhm. donc ñun citoyen ñoo leen war a gën a mën a jàppale. Mhm. ak kubéer yi nga xam ne dañ koy dajji ak a sàcc. def naan yooyu yëpp tamit euh, war nañ ko bannir. ba nga xam ne effectivement euh, dinañu am cadre de vie bu gën a mën a mucc ayib. jëm si li nga xam ne moo di évacuation des eaux usées. très bien ñu quitté Ndakaaru dem wutali foofee ca Linguère wax nag ab cérémonie lancement ab mouvement humanitaire euh, ñu duppee ko nouvelle alliance des combattants d'ici et de la diaspora ku mel ni kon ki ko initié bokk na ci euh, ku ñuy wax naan si Guissé Ndiaye di présidente des femmes libérales d'Italie di ab mouvement bu ñu sukkandiku ci ay kàddoom yi nga xam ne mën nañ ci wàññi ci lu toll junni ak juróom-benni téeméer ci ay membres euh, ci diaspora bi ñu teewlu ko ci ay leeral J'étais la présidente des femmes libérales d'Italie ma absente dans la scène politique pendant des années mais di nga am ñuy nekk sa ginnaaw ñoo xam ne dinga nga toll à un certain moment doo moom sa bopp da ngay ñëwaat ci terrain bi da ngay ñëwaat ci terrain bi ba ma duggaat ci ne bu may duggaat damay def sama propre mouvement mais j'ai pas regretté regretté wu ko et de la diaspora la mais fii présentement ñi nga xam ne seeni pièces et tout légalisé et tout on est à mille six cent et quelques mais j'ai pas plus de mille personnes yoo xam ne dañuy adressé nii. ndax xalaatam rafet na fi mu bëgg a jigéen ñi jëmee jigéen ñi yàlla xam na ko yonent bi xam na ko fi mu bëgg a jëmee Sénégal yàlla xam na ko yonent bi xam na ko yàlla na fa àgg lu mu am bokk na ko ak jullit yi macha allah tubaarkàlla dañ koy ñaanal yàlla mouvement bi ca kaw ca kanam la ñu bëgg mu àgg fa ci daraje yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngook euh, ci noonee la ñu desandi ba léegi ci wàllug euh, politique euh, addu wax ci frond ñu nemmeeku ci conseil économique social ak environnemental ñu ko def bokk ci membre bureau ba di ay conseiller bokk itam ci actuel régime bile lee génnuk sa Seck président bu institution le ci lu soxol troisième candidature bu président Macky nekk na pilule bu nga xam ne ñoom mënuñu ko jamono ji wann mu mel ni kon lu jëm ci boobu lekk frond laaj bi samp mooy lu jëm ci boobu lag institution dañ ko fee war a dindi wala sax warut a am euh, ñu teewlu ci njàngatut na ko ba bakkee ko jàmm amatul ca conseil économique social et environnemental ginnaaw bi Idrissa Seck fësalee ne candidat la ci élection présidentielle yu 2024 yi ndax juróom-ñett ci fukk ak ñaari membre yu bureau bu conseil économique social ak environnemental ñoo bloqué doxalinu boobu lay kuréel la njiit la di ñaaw lu rébellion bu graaw di taxawaayu ñenn ñi nga xam ne wàccoow ñoo ko décret présidentiel 2023 tiré 357 bu ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru février 2023 ci communiqué Idrissa Seck di ñaawlu itam comportement bi mu jàppee ne anti républicain la teg ci di joxoñ baaraam ay conseillers yu mu ne ci APR la ñu bokk loolee di firndeel ne conseil économique social ak environnemental jamono jile mbirum politique moo ko yëngal te sax kenn réeréewul mbir ne ci jamono yi ñu toll njiitu parti réew mi delluwaat na ci mbiicoog mballo ci digganteem ak yenn responsable nguur gi te li koy firndeel mooy taxawaay bi yenn conseil yi bokk ci APR am ci biir conseil économique social ak ñi yàgg a wax ne bile kuréel amul benn njariñ te gisuñu njeexital bi nga xam ne am na ko ci dundu askan wi te lu mooy koppar gu baree bari bi nga xam ne conseil économique social ak environnemental mi ngi koy dërëx bile kuréel ak nii ñu gisee muy doxee nii mel na ni li ko taxoon a jóg mooy am fu ñu tàcc seen clientèle politique mi ngoog euh, Abdoulaye Mbow mu mel ni ñaari euh, laaj laa ci toftal laaj la ko muy benn bi ci njëkk est-ce que aujourd'hui le président Macky Sall du arbitrer pour li xew ca euh, conseil économique social environnemental beneen bi mooy njëriñ li ñuy wax ci bile institution ndax fekk na ko ci. président Macky Sall aajowul muy intervenir euh, si li nga xam moo di li xew euh, conseil économique social environnemental. Mm-hmm. conseil économique environnemental dafa nekk institution si on reste véritablement sur le débat. Mm-hmm. par rapport ak li nga xam moo di la marche des institutions dañ ko tabb euh, kii nga xam ne moo di président bi di Idriss Seck président Macky Sall moo ko fa tabb. mu am ay ay yoo xam ne dañ ko war a respecter ñooñu nga xam ne dañoo créer front sur la base de Idriss Seck nekk candidat conseil économique social et environnemental la mm. Idrissa Seck euh, à part conseil économique social institution la à part donc mm. ñooñu Seydou Mohamed dañ leen war a sanctionner. Mhm. aussi simple que cela. maanaam ñi def fronde bi. dañ ko a sanctionner. Mhm. est-ce que ñoom euh, conseil économique social ça appartient à Benno euh, ça appartient à l'APR. Mhm. c'est une institution boo xam ne dañ ko fi teg au nom de la République. donc bu fekkee ne ñoom doxaluñu yoon parce que kii ko jiite nee na moom dafay nekk candidat face à leur mentor ñooñu def fronde bi. dama ne ñoom dañ leen war a sanctionner. à la mesure euh, si li nga xam ne moom la ñu dox. jëfee ko par rapport li nga xam ne mooy fronde bi ñu occasionné. Mm-hmm. Idriss Seck nag moom mooy décidé ne dafay démissionné mm-hmm. wa illaa président Macky moom mooy décidé ne dafay mm-hmm. démissionné ki nga xam moo di Idriss Seck l'un dans l'autre mooy reste le président de cette institution parce que kaka tab ma nga fa bàyyi ba tey loolu defe naa ni nag waruñu si am